a ah, président assemblée nationale ñoom ndaw ñi ñu ngi lay nuyu. waaw. nag te ñëw bii am nañ ci mbéy. teewaayu kilifa la. teewaayu kilifa la. teewaayu nee na boo ñëwee tey ci kër gi. ñëw jaale si Cheikh Amadou Diagne ba sa frère. daa mel na nag sa bopp nga jaale. ndax yéen ñaar. yéen a bokk benn kër. yéen a bokk jàpp na ne. yéen a bokk a bokk nag ndey wante yéen a bokk baay. boo xoolee Sénégal. boo xoolee ba ci a biir. a biir. ñëpp ay mbokk lañ. ñëpp ay mbokk ñoo doon demalante. ñoo doon demalante. waaye président. wante président. ñu ngi lay xamal ne. ñu nga jaale ku baax. ko dal. ku yaru nit ku am yar. ku reconnaissance. ku am reconnaissance. ku mën a dimbali jaamu a dimbali jaamu yàlla. dimbali waa Medina. Cheikh mi dimbali na waa Medina. ku taxaw waa Medina. ku taxaw waa jigéen ñi. ku taxaw jigéen ñi. a marqué mooy. yéen ko gën a marqué ci Cheikh. seen yi am yoon dafa daf leen nga xam ne jën yi nga xam. doon da leen a téye. téye caabi féete leen ginnaaw. dañ dañ koy message di ma woo. di ko woo. dama jaaral ma. ne ko jaaral ma. Cheikh Ahmed Tidiane Diatta. dimbali bu mu leen di dimbali. ndax dimbali ba mu leen di dimbali. ñoom ñu nekk ci biir kaso bi. ñoom ñu nekk ci biir caa bi féete leen ginnaaw. mënul leen seen bopp dara. mënul leen seen bopp dara. lépp lu ñu soxla. lépp lu ñu soxla. su ñu war a dundee. dañu war a dundee. Cheikh bi Cheikh bi. moo leen fi jàppale. moo leen fi jàppale. teg ko ci loxo Atoumane Ngom. teg ko ci loxo Atoumane Ngom. yóbbu ko Campenal. mu yóbbu ko Campenal. ci góor ñi. ci góor ñi. ak Campenal ak Campenal jigéen ñi. ci jigéen ñi. ci jigéen ñi. yóbbu ko 100 mètres. yóbbu ko 100 mètres nit ko nit kii. nit kii di Cheikh ku baax la. ku baax la ñun nag. ñoom nii ay ndaw lañ. ay ndaw lañ di topp Cheikh Ahmed Diagne. di topp Cheikh Ba. di déggal Cheikh Ahmed Diagne. déggal ko. bëgg président Macky Sall bëgg président Macky Sall. fu mu nekk fu mu teg tànkam rek. Cheikh fu mu teg tànkam. fa lañ teg suñu tànk ndaw ñi fa lañ teg seen tànk. suñu mbëbët ci moom. seen mbëbët ci moom. mooy président. mooy président. lu mu bëgg rek. lu mu bëgg. ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci. duñ ci dellu ñu wax wax du ñaaw. ñu wax du ñaaw. duñ dépassé kenn. ñu saaga duñ dépassé kenn. ñu sant. mooy liggéey. mooy liggéey. liggéey suñu réew. liggéey seen réew. bay suñu waar. bay seen waar. jëmale suñu réew kanam. jëmale réew mi kanam. président nag. président nag. moom nag. moom nag. ñun dañ lay suivre. dañ lay suivre. ci assemblée. ci assemblée. nga nekk nit ku dal. nga nekk nag ku dal. nit ku am yar. ku am yar. ñu ngi ci assemblée. da muy jaxasoo assemblée. ñu muy jaxasoo jaxasoo. ñu ngi ne tekk rek. nekk kilifa moom la toléré ñëpp. toléré ñëpp te toléré. te toléré yombul. yombul suñu borom subhaanahu wa taala borom nekk. moom mu ñu sàkk moom mi ñu sàkk tolleelewul tolleelewul xam lu mu mënul boobu yàlla lu mu mënul yàlla mooy wax mu deñ wax mu deñ ak tollere ak tollere te yow yaa ngi tollere te yow nag yaa ngi tollere ñu ngi lay sant sa teewaay sa teewaay di la xamal ne ku fonk président Macky Sall fonk président Macky Sall ku bëgg président Macky Sall ba bëgg la ku mu dalal xelam mu dalal xelam biir Médina biir Médina ñi ak Cheikh Ahmed Diane Ba Amadou Ba. ak Amadou Ba ba dugal ko pare incha allah. incha allah li mu wax nag dëgg la.